sama cant ci yàlla subhaanahu wa di gërëm see Ahmadou Bamba xaadim rasool di ñaanal sëriñ taxaa mu yàgg fi loolu te wér di nuyu bu baax ñi nga xamante ni ñoom laa fekk si nekk ay kilifa te imaam jiite leen ci jëkk bi muy imaam Ousmane Bodian di sama waajur di nitu yàlla nga xam fi mu teew sëñ Muntaxa la fa teewal alaaji Maalik la fa teewal kilifa diine yëpp la fa teewal moo tax bi ñu duggee ci dëkk bi lañuy ñuy njëkk a def mooy dem saafonteeg moom maa ngi wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ni kullu nafsin saayixatul mawti di wax ni ku kullu man xaleha faan wa yabqa wàcci rabbika sul jalal wal ikram maa ngi sant yàlla ndax tey jii fii ñu ñëw dëkk la bu nu yàgg bëgg a jëw ndax li ñu fi dégg ak lu ñu fi gis mu di ay qualité ak ay valeur yu des yi ngi fi dëkk ak ay bañkat tey bi nga xamante ni sëriñ mun Muntaxa mbir mi xew na mu taxaw si taxawaay bu rafet man mii nekk doomam mu jàngal ma yar ma jox ma ay ndigal ma xam ni fii réew mi jëm baaxul ci laa jóg taxaw wax ak moom mu joxe ndigal mais sa dommage ki mu jox ndigal nekkul kuy dégg ndigal muy makki sàll ndax ñàkk dégg ndigal moo tax ñii am tey fukki at ak ñaar mooy ki si gën a nekk ndaw fukki juróom fanweeri at ak juróom mooy ki si gën a mekk mag mais ana askan woo xam ni keleen leen di jiite mi ngi rey seenu ndaw ba noppi di dig liggéey seenu ndaw kooku ku ko wax waxoo lu am jàpp naa ne ñii fi jóge nga xamante ni tey yaakaaru seen réew la woon yaakaaru seen waajur la woon yaakaaru àdduna bi loon ñii tey ñu ñëpp war nañoo maase fu waay man di nekk nga fàtt li nga bëgg ngir ñu delloo ñii njukkal loolu mooy suñu tànk te fas yéene naa nekk ci seen biir gunge leen ànd ak yéen ba nangu réew mi ci loxoom teg ko ci loxol ci ko war a yor pour ñu mën a saafara li nga xamante ni mooy li fi am ndax réew mi ñi fi nekk sonn nañ réew mi ni fi nekk tumurànke nañu réew mi ni fi nekk dee nañu man mii di wax ak yéen nekk député assemblée nationale nekk vice président commission de loi assemblée nationale depuis 2017 ba léegi wote naa ñaar téeméeri milliards ci Ziguinchor te bi ma ñëwee gisuma ko fu ñu ko dugal nangu nañ seen xaalis nangu nañ seen suuf rey nañ seen i doom léegi lan dese yow tëj seen doom jii nga xam mooy seen yaakaar mooy Ousmane Sonko mais na ngeen lànk ku am fu da ngay lànk ndax mooy seen yaakaar 2024 pour mu jël réew mi pour sensé ko pour delloo leen seen àq ndax xaalis bi kenn gisu ko sirkon bi kenn gisu ko rey nañu xale yi léegi nag kooku taxaw di wax sëriñ mun Mountakha démb si guddi naan ko loo mu wax laay def loolu mu wax amul nangeen xam ni ñi fi jóge nan bàyyi xel waa MDDN maa ngi leen di remercier te di leen sàkku si yéen bis bii nga xam moom lañu tànn tey nañu ko fës fas ne mandagar ak mu jot ñu def ko ci benn gox pour que maanaam delloo njukkal ñii ñu bañ leen a fàtte ba 2024 ñu jekk li ki fi jógee teg ci réew mi jàmm ak jub ak dal bu ko defee ñi rey ñii ñu mën leen traduire à la justice je vous remercie jërë